bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm ñu dellusiwaat ak yéen ci xibaaru kawteef yi la ñuy waxtaanee tey mooy ab baay bu doon yóotoo ay doomam ba mujj dugal loxoom ca biir kaso waaw ab dëggantaan bu niru ay gént waa ji ab directeur société la dafa artu soxnaam sa ne ko dinaa la rey subhaanallah jotaay bu doy waar ci diggante ay woy dencante moo amoon démb ca kanamu woy la tekkat ya ca tribunal des flagrants délits bu ndakaaru njaay waa ji seen nekk ab directeur société dafa yónnee soxnaam sa ab bataaxal xaatim ca ay waat yoo xamante ne yu dëggu ci moom la la nan ko boo del suwaatul ak samay doom dinaa la faat ci boobulee bataaxale bu mu ko yónnee ñu xaatim ko ci kàllaamay nasaraan waaja ma ngi cay wax naan je t'écris tous les jours mais tu ne pas maanaam maa ngi lay bind ak di la yónnee ki bataaxal bés bu jot waaye tontuwuloo mu teg ca ne je veux mes enfants sinon je te samay doom laa bëgg nga indi leen lu ko may dinaa la rey ca nam ko bindee ci bind bu leer waa ji ma nga naan wallahi azim juróomi weer a ngi nii maa ngi lay wër mën ngaa génn Afrique dem waaye dooma rëcc personne ne peut m'arrêter kenn du ma laa la wax je te tuerai dinaa la rey lii la bind ca bataaxal ba nga xamante moom la yónnee soxna si bu ñu sukkandikoo ci waa réew mi quotidien ñi nga xamante ne ñoom ñoo siiwal bi lee xibaar waa ji seen jot nañ koo àtte ci kanamu juge ba teg kob daan bu tolloog atum lëmb ca biir menace de mort maanaam am yéeney faat nit nit kooku di soxna si mu jot a amal ay bant ndaw sa féetee ca Italie moo ko yóbbu ci yoon ginnaaw tiitaange gu mu amoon ci artu ak dankaafu gu ko borom këram doon def dafa dem boole ko ci ambassade Italie bi ci Sénégal waa ambassade ba yëkkati mbir mi teg ko ci loxo yi waa gendarmerie bu Colobane ci xibaar yi ñu mujjee jot nag ñoom way takk der ya jot nañu amal ab lanket laata ñuy teg loxo waa ji sant seen nekk ab directeuru société bu ñu xam ci réewum Sénégal ya ak takk der ya weddiwul lenn ci li nga xamante nii moom lañ ko waxal waa ñi ana seeni mbokk xanaa médiation dafa jeex ci biir réew mi ñun de li tàmmoon mooy lu am ñu toog waxtaane ko balaa moo yegg fii mbir mi yegg lu ci mënti am daal bi lee bàyyi du ca biir kaso ba lay gisee ay doomam waaw waaw kay cant ngërëm ñeel na leen Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal